asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a ak wërëm di gën a feddaliwaat sunu yaakaar ci sunu bunt ci yoon wi di cheikh sidil muxtaar maam cheikh eh, di ko jaar ci cheikh mahamadul maamun mu jaar ci cheikh mahamadul roqaya ñëw ci sëriñ cheikh xalifa sëriñ Modou Rokhaya eh, jërëjëf mbokk yi yéen a ngi fekk fii ci dalub Daaru Salaam bi fi nga xam ne fi la njabootuk sëriñ Modou Rokhaya gi daloon eh, fegoo ak njabootuk sëriñ Amdi gi sëriñ Abo gi lépp di njabootuk sëriñ Modou Mamoun ñu nekk fii nag jàkkaarloo ak sëriñ Mbacké Madina mu fas yéene yëkkati ay kàddu ci ndigalul kilifaam di sëriñ Jiili muy wax ci ndigalul sëriñ seexanta ndax moo ko woote woon xel kom ji mu woote woon ko ameloon na bunt kër yëpp wuy si woon nañ eh, ñëwoon nañ fiit it ci alxames yi eh, tey jii nag di ci gaaw bi liggéey bi lépp noppi na kaddu yi nga xam ne moo doon kaddu yi sëriñ bi yi muy sant yëkkati ko teg ci loxol sëñ Mbàkke Madina. bismillahi rahmaani rahim eh, ñi ngi sant yàlla sun borom bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sant maam Cheikh Anta borom xam ne moo boole ci sëriñ Tuubaa Euh, di euh, wax ci turu sunu kilifa muy Serigne Jili moom Serigne Mouhamadou Roqaya muy wax ci turu kilifaam euh, muy Serigne Cheikh Anta ak mboolem njaboot sëñ Modou Roqaya gi fi teew yëpp Serigne Ibrahima Mbacke ak sëriñ Khadim ak sëñ Maam Balla sëñ Cheikh Gaynde mboolem ñu fi teew ci xel xelkom ji ñuy wax ci seen tur Serigne bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax di am mbégte ci liggéey bi nga xam ne Serigne seex Saliou joxoon nag ko mu di ko liggéeyal fii ci Daaru Salaam sunu boroom dogal mu mag. nee na mi ngi sant mbooleem taalibe yi nga xam ne ñëwoon nañ ci eh, dale ko ci ay rakki boppam yi nga xam ne ñoo bokk ak moom ba pare ñëw ci liggéey bi eh, ci jëwriñ yi surtout jëwriñ muy sëriñ jiili mi ak mboolem seex si nga xam ne aju nañ ci kër gi te jóge fu sori ci dëkk yu wuute yu bari ci biir réew mi ñëw ñii di ay seex ñii di ay jëwriñ suñ limee dañuy juum eh, sëriñ Modou Mamoun ja sëriñ daam caam ak see Cheikh Aliou Faye ak euh, waa daaru kibaar yi ak waa bari ak mboolem euh, daayira yu jóge dakaar yu jóge Ndar ak fu fu nit jóge ci réew mi rek euh, sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ak seen pas-pas bu rëy ci liggéey bi yàlla dogal na nag liggéey bi mat na sëriñ ni ko sëriñ bi bëgge woon defee nañ ko nu kawe noonu sëriñ bi nee bay boo ngeen defee njort te xam ne sëñ waaw moom ku koy liggéeyal ku ne ah, bay boo séntu lu rafet te te te rafet njort ci sa bopp sëñ bi nee sant na ñëpp gërëm na ñëpp waa sëriñ Saliou Ndioul nag ndeysaan mi nga xam ne daana ànd ak bi liggéey bi sëriñ bi nee na mi ngi ko ci rendre hommage di ko di ko di ko ñaanal suñu borom yërëm ko eh, te jéggal ko xam ne fu mu mos a nekk ci liggéey bi rek fekk na ko fa ñu daa ko ànd tey nag suñu borom dogal mu wuute ko yàlla na suuf sedd ci kawam suñu borom wanele ko ak maamam di ko jaal ak njabootam di ko jaal waa kër sëñ Abdoulaat gépp eh, sëriñ Sidi ñaanal suñu borom yàggal ko fi de wér ak mboolem waa kër waaw Cheikh Amar mi nga xam ne tamit day saan moo daal doon jëwri xel xelkom te yàlla dogal xëy na euh, suñu borom dogal ren ñëwut waaye pas-pasam fu mu mën a ne rek liggéeyal suñ ci wàcc ne yàlla na ko yàlla fëgg boppam yëkkati ko euh, te gën koo yokki xéewal ba lim daa liggéeyal suñ ci wàll lépp continuer ak mbay am ma rek Siidek Cheikh Abdou am ma rek njabootu naar yëpp waa ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm